waaw mais ñu ngi kenn ci finaliste yi la. maa ngi lay nuyu yow. Njool bu Sana. Njool bu Sana Njool la Joolaa bu Joal. waaw benn baa ngi nga jógee ba Joal. wusu ko ba Fatick finalu. billaahi sonn rek. Ah. mar faafa ko laa daanu continuer si fii nii ah. si poids lourd. waaw. mais ki nga war a bëre final est ko. Biram Bisin waaw. mos ngeen bëre. waaw mos nañoo bëre Somone. Ah. waaw mais moo daanoon nag. Ah. waaw da nga war a jël sa daan. Ah. billaahi. mais moo gisee benn combat yaa ngi Mbine ci quart de finale yi mu métti te yéen ñaar ngeen dëkk Joal lu ko demee noonu. Mbine Ndiol dañuy bëre maa ko mun fuuf maa ngi am 10. waaw man maa ko wax nag maa ko am 10. mais est-ce que jotul yéen waa Joal yi ngeen xam nga doxal fair-play di xam noo leen ko seen biir. ah man dama koo may. Mbine maa ko may <laughs> mais waxal ci final bi Birame Mbissine noo fas yéenee bëree ak moom. Birame Mbissine koy daan. Ah. mag la ma koy attaqué. Ah. waaw. mais looy wax say supporter ak waa Joal. maa leen di sant di leen di gërëm ñi ma nañ may jàppale si lamb yi rek ma. Ah. lamb rek. maa ngi gërëm tamit sama mag sana. waaw moom moo ma yar aw ma fayam daal. waaw di gërëm tamit. sama gaay yëpp. koñ nga yëpp mënu maa wax moom. waaw gërëm Baba Jibi. ak Yirim Saret. ana waxoon doo wax billaahi. <laughs> mais doon munoo ñàkk a wax tur. waaw waaw ta bonne chance que le meilleur gagne. Ah? di gërëm nag kii nii Dadi. waaw waaw Dadi Sowal. nañ la. Birame Mbissine Sène en finale encore. boo na ma ñaaja. waaw ndig rek. ɓiɓɓe sal keke biram mbisin ka ko garmana jaxaw ñak xayo mene Fatick naga yo ñom naga yo i mais final fe oxe maak waaw mamna nagonum koy jol ah. eh. fe sowal andame an datino leyni mafra jaf leng o maafin mais final fe nam fasena maafitin ne fitanma bo mene rek i ah. eh, naga rek um damit kan xeɗa ah. eh, um dana mudum yasam rogo yala wacina ten to damalin xa ley ka supporter ke fo we ando naye den genu gidmana mbege a den gidma den to ande kum fiya ngir deno quoi programme chaque jour mbega den quoi da mbegayo aca leya aussi koy waaw a jëm na le cinq décembre. ku mën doonu fop un million trois cent. a ah, aca fokki trois cent mille poids ki un million. waaw aca kon kaaga leeral nañ. aca arbitre sifflé na final. fii ci Njaanjaay Fatick ndeysaan. tey di dimanche. le décembre 2021 Biram Mbissine Sène ak Ndiol bu Joal di bëgg waa Joal ndeysaan sama champion Moussa Yade Fall la champion d'Afrique bëgg naa la Aliou ko sow waaye la siyaar Mamadou Faye Jaxa bëgg waaye sama grand Basirou kan ca Maroc maa ngi siyaar Pierre Jacques Ndiaye Maroc bëgg naa la Ismaïla Dieng ma fi ab yëpp bëggel ma maa leen gën a kontaan waye grand pap du Diouf le gendarme ca Bunkiling ma ngi sa dëkk sama grand ibrahim ndok ma koy du di ko beye Seri asu ndjay fi ci fatik cité émetteur ma lay bégee ibu Seri asu akhadi di bégee wa ko mo mooy yeb sama dëkk Biram Mbissine Sène Ndiol Ndiol à droite Biram Mbissine Sène à gauche moom lañu xaw a jàkkaarlool eh Ndiol nee ma mag la dama koy attaqué la waxoon mu nga ca waaye Amath Sayid Ndiaye fii ci Njaañaay Fatick koy siyaar Amath bëgg naa la. ndeysaan rena jambour dami donof e banum ɓe gam siga caame maɗoxe fut ka calan njool biram mbisin la ak Biram bi siin seen waa groupe ñoom 100 pour 100 bëgg naa leen docteur Vincent Sarr le docteur Biro Sarr gis naa la ndeysaan wala gis naa sa rakk Marcel fii ci lamb nee na ma jëmi laa ca Kaolack jóge ba Kaolack seetaan si fii Marcel Sarr maa ngi lay arbitre baa ngay wax ak ñoom waa groupe Ngëm 100 pour 100 Tamsir Jokondong borom Fadial bëgg naa la Ibou Loul Ndindi Fall Serigne Saliou Faye njool Bisin Ndiol daan na Birame Mbissi Sène